bonsoir ça va grand ça va ça va bien alhamdulilah sant alhamdulilah ça va merci bonsoir ça va grand ça va ça va bien ça va grand ça va alhamdulilah na nga def nag ça va sant alhamdulilah ana Amina mi ngi fii waaw mi ngi ci biir xam naa léegi mu ñëw ah d'accord grand lu xew tey da nga xaw a sedd kat. non non wala dossier sànq bi la rek. non non du dara du dara ah d' accord ok. ah waaleykum salaam. soxna si na nga def. yaa ngi sant. alhamdulilah. waaw bon voilà ba duma daal dama lay baal wax quoi parce que vraiment. dama benn situation bi xaw ci rek boo xam ne vraiment dama gêné wu quoi. ok waaw c' est à propos de kii xam nga yow maa ngi ci kër gi. dëgg la. waaw nga am yéene bu baax ci moom ah de vraiment daal gis nga mu nu ma mel melokaanam. te dal dina la neex nga def ko maanaam daal sa soxna. ñu mhm. waxtaan ci ba nga ne ma daal soos leen loolu mooy am. dëgg la dégg nga affaire bi neex ma lool bu sama jabaat dégg nga ma gis daal comportement bu mu yor léegi daal neexuma. Mhm. waaw mën na la teg gàcc ma ne xaaral ma wax yow yoon yow man ma fës loo doo ma teg gàcc ndax sama nawla la dal daal mi ngi mi ngi nii dem bi wax la

man daal li ma ciy wax bariwul lenn daal xam naa ko dama naan alhamdulilahi rabil alamin sant yàlla bu baax di dolli di gërëm sama ndey di gërëm samay waajur ndax wax dëgg yàlla tuuxi doonu bu rëy bii ñu ma naroon a dugal ak sama gëdd ci biir dëkk bi ñuy wëlbatiku di wër naan ba du taal takk na jabaru jaambur man dootuma jar dara ci biir dëkk bi waaw mais grand grand lan laa la def ba nga bëgg maa dugal ci ci erreur wax fa dëgg yàlla kii am jëkkër dama koy jéem a may di ma nar maa njaalooloo ak sama euh, gëdd bi ma am ci dëkk bi ñëpp xam ma ñu naan dafa ñëw takk jabaru jàmbur dugal ma ci tooxi doon na ñaar yàq sama def ci dëkk bi yëpp kenn dootu xam ne mooy loolu dinaa la ma ciy wax bëriwul soxna si baal ma ax baal ma ax bu baax grand ak yow banaan ak yàlla. yéen ba toogal toogal. non parce que war wala mënu demee nii suñu non non merci non réeraloo la rek toogal ma ma ma la yaa bon yaa ma bett gis na gàtt gi ma teg kii sama nawla la sama di sama xarit bëggoon lu baax ci yow. dama am ma ne yow ku bon nga bëggoon lu baax foo moo la tax a jug man fii sama kër la lu bon bëgguma ko fi jëlal sa bagage la génn ci biti. Eh, jël sa bagage nga dem si yoon mënu ma dëkk munu ma dëkk ko bon jugal jugal nga dem munu ma dëkk yow jugal jël sa bagage nga ñu biti allez di ngay bon yow ya bon man duma dëkk bon <laughs> wa ci as gis nga local bi suñu defé nank nank dinañ am bu baax moins cher te kenn duñu nax mom kay maa la wax di gis nga astel do deful nank la dañ lay nax fi fa bari truand de i ma ma ci xam dara astel fii nit ñi dañu doy de waa jooy kat lan lay waxal noonu. xanaa Astel mu jël fan yii. kii Astel. yaay Astel sama xarit la. yow joojo lan la. lan moo xew ni wax la nga may xool si biti di ma ciy bëtu. da ngaa jëlaate. da nga ma xam ne jëlaate yow joojo. kat yi doy na. waaye yow dama dégg nii na fi joojo. maa Boubacar yónnee na fi kolos kolos ñu ànd ak xale bu jigéen bi ñu amaloon problème bi. may leen sax fu ñu expliqué problème bi lan moo ko indi. man nag fekk ma soo ma fekkoon dinaa toog bu Boubacar kolos may ko moom ak xale bu jigéen ñu wax ma lan la situation bi demee woon mais daf leen toroxal dàq xale bu jigéen bi si biti. Mm. loolu la mm. en plus pareil que Boubacar il n'a rien fait deful dara. yow jooju te yaa sañ a toog fii da jël Boubacar paar. ak Boubacar jooju Boubacar li ma def lépp nga teg ci sa bët. il n'a rien fait. il n'a rien fait tey nga sañ wax loolu. dara tey nga ko sañ a wax. yaay Boubacar dafa yónni kolos ak benn xale bu jigéen bi mu nekkaloon bu ma demee xale bu jigéen bi ma ko bettaloon ñoom ñaar ñoo fi ànd ñëw di expliquer seen expli man seen explication ñu expliquer ça ma m'intéresse pas ñoom ñaar dañu jot def ça ma me concerne pas lijjantiwu ma ko yaay ñu wax nak mu yoni ko pour mu ñëw da daa ne ko marchandise bu yewona tay tey nga xam ne marchandise du génn bakkar nak yaay nama baax ma comme bu bakkar ñëw na fi yoné na da nga bëgg nga may ko chance chance yàlla tare may mako ko bu bakkar la bëggatul dégg waxu Boubacar moo ko kenn waxati ci kër ga wala ma jël samay bagage abal leen yow nak mom fekkee ni Boubacar dara tital nga jël ko nga nga sëy ak mom demal ak sa astel moomu rek fani mo ngi jënté xam ma guin la xam limi bizarre lépp ndey foo may pincé. lan la. dampotement dampotement. pour lan ma lay dompet. non ndey dampotement rek. dampotement wax yoo xam yow tamit wàcce sa loxo yi nga pour lan ma lay dompet. lu ndey dampotement parce que la mënuma ko gëm. loo mënul gëm dafa yoo xam daal yow yaa ngi may bëgg jaaxal. yow lii daf laa jomb. di réfléchir suma ndey non bax yox daan lal bi daf laa jomb loolu laa lay laaj non je réfléchis seulement ma ngi oui ma man day jàllo hmm. man la hmm. bëggal sama bopp bax yox man maa la tànn ci ñëpp bëgg la sama biir xol bax yox yow tamit yaru nga hmm. baax nga tabe nga te dangaa bëggaabul bax yox yow tamit nag bëggaab waaw waaw na ah bax yox daal yow tamit nag bu jaaxal yow lal bi dalaa jomb xoolal mm. xaaral tuuti xam nga Boubacar yéeg na mm. ba mu nelaw bu mm. nelawee rek yow ñëwoon fëgg sama bunt fekk ma sangu ba pare yow yaa wax maa wax lu romb loolu wax bii hmm? <laughs> yow tamit daal bu ma jaaxal yow tamit ndey ñàkk baaxul nga ni ñàkk fi andi waxu ñàkk xaalis <laughs>

gis nga. xoolal yow fa ñaaw di romb yow jege woo ko sax wax ko xool ma. Hmm. yow da ngaa ñaaw. ah dama ñaaw yow mii xoolal hmm. ba ubbi tugg bëgg nga jàkkaarloog man wax ma ndax yow dangaa ngaa ñaaw. yow jege woo ñaaw. Hmm. romboo ñaaw yow biir bi du biiru fonde yow tamit nag ba xëy lii xoolal biiru ganaar la te xoolal biir bu la ci dara jaaxal xoolal su ma ko jàppee ba bàyyi ko. dootoo ko séenati sax <laughs> mu la dara metti comme tu dis a pas ah. <laughs> eh, xaalis neex na. <laughs> wallaay xaalis dafa neex waay <laughs> Lisa tey moom di ko jégal ba fay ko Ardo ma sœur ça va na nga def ça va. ça va. na nga def. réussi ah da nga am problème. déedéet amul problème de. foo jëm nii. ah fii rek dafa am fu ma war a dem. ma doon xaar mu jëf kaay ma kaay ma yóbbu kaay ma yóbbaale la. ma yóbbaale. waaw non garaawul sori moom moo tax. non garaawul kaay ma yóbbaale ah. jigéen bi dox du dox heure bi heure bi dafa guddi. yow rek ku baax nga. waaw kaay. jërëjëf. xaaral ma dugalal bagage yi.